tey mooy fukkeelu bunt bi tëj burtu bi incha allah mu ne yaa akramal xalqi maali man aluudu bihi siwaaka inda xuluuli lxaadisi lamami man nag téere bii ma yor yaa akrama rusli la def yaa akrama rusli maali man aluudu bihi siwaaka inda xuluuli lxaadisi lamami ñaar yépp baax na boo nee yaa akramal xalq mooy ay yow mi nga xam ne yaa gën a tedd ci li yàlla bind yaa akramal xalq maa ngi lay woo yow mi nga xam ne yaa gën a tedd ci li yàlla bind da nga naa ci ki nga xam ne moo gën a tedd ci li yàlla bind yaa akramal rusuli ee yow mi nga xam ne yaa gën a tedd ci ñi yàlla yónni maa lii déet di ma ñeel man Muhammadul Busayri man koo xam ne aluudu danaa wéeru bii ci moom man de aw ma kenn ku ma wéeru si waa ko ku dul yow yonent man yaay sama wéeru waay loolu la Muhammadul Busayri wax wallaay ndeysaan dégg nga de kañ inda xuluuli ca waxtu wàcc wa xaadisil amami xew-xew bu matale ba xam nga mooy ban bis buñ ko takkee bis buñ ko sangee sàng ko jullee ko yanu ko ba teg ko ci kóosu bàmmeel wi di ko yoor ci biir bàmmeel foofu kenn du ci mucc loolu xool ab yonent walliyu ku jub ku jubadi ñëpp a yem fii ñëpp fi dugg ñéppa a yem ci dee <laughs> mas naa dégg Amath Dansokho mu ne démocratie amul ba yàgg mu ne daal mooy dee <laughs> parce que dee ñëpp ci yem dee moom ku baax day dee ku bon day dee mais leneen lu dul loolu soo ko tuddee ci àddina bi am na ñum laal am ñum laalu gis nga même luwaay yi ñuy wax nii am na ñum tënkul de am na ñoo xam ne nii kenn du leen àtte kenn dëgg la ñeneen ñi dañ naan heure bu ñu wàccee mën nañ leen topp waaw mais période bi mu topp ñeneen ñi ci des dañ leen a privilégié ci kaw ñi ci des mais dee buur ak baadoloo ci yem moo tax mu ne démocratie daal mooy dee donc effectivement foofu moom ñëpp fa yem mu ne gis nga xew-xew bu rëy boobu xaadisil amami xew-xew bu matale bu rëy boobu inda xuluuli waxtu wu ñu ma cay wàcce yenent laa yaakaar muy sama wéeruwaay fii nag am na ñoo xam ne dañ ko cee dal dal yu metti nee nañ lii waru koo wax ndax lii dafa ëpp ah lii dafa man leen lii lu ci ne xanaa xol bu feebar kay ñu ne ne foofu yàlla rek la fi war a yaakaar fii boo fi wàccee yàlla yow ci xaal bii di ko yemaleeg yonent bi yow yaa ngi bokkaale yàlla wax ji kay boo ko déggul rek bàyyil mu jàll déggoo ko bàyyil mu jàll ou yow sa sa pas-pas yeggul foofu bàyyil mu jàll waaw kay yaa sayyidi yaa aba zahrai munqidana mimma naxaafu min al adraari wa saxami waa yii moom sama téere indi ko xam naa sama téere daf ko tëb kon bàyyil ñu jël ko fii rek mu ne yaa sayidi yow sama sang bi yaa aba zahra yi yow mi nga xam ne yaay bàyyu fatima munqidana yow mi nga xam ne yaa ñuy xettali mimma naxaafu ci lépp lu ñu ragal minal adraari ci ay lor wa saxami ak i feebar yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lay waxal de ha ana bil baabi mu ne ko yëgal ne maa ngi ci bunt bi ha yëgal ana man bil baabi maa ngi ci bunt bi yow sang bi laa abqi bikum badala sàkkuwuma ak wotti mukk ak yéen maanaam duma leen wecceeg fenn duma dem tey duma fi jóge abadan xataa tufarrija maa qad haala min himami lu dul da ngaa wuññi li nga xam ne mi ngi lakk ci man ay njaqare waaw min himami ci ay njaqare maa ngi ay fitna ak i jaaxle yoo xam ne mi ngi may lakk maa qad haala min himami kon nag yow yonent ajil gaaw ajil maa ngi lay ñaan nga gaawe ixaasata abdin ci xettali jaam bii nga xam ni yastajiiru bikum mi ngi ñëw di xettaliku ci yéen yaa rahmatan ursilat min rabbina alxakami yow yërmande ji nga xam ne ursilat yónneef nañu la min rabbina nga jógee ci suñu borom alxakami ka di aji àtte moom yàlla yow yaay yërmande ji yow yenent yow la yàlla yónni pour nga xettali jam ñi ay yaa rasulallah walluma waaw lil xalqi irham wallahi yow la yàlla yónni yërmande lil xalqi ñeel mbindeef yi kon nag irham yal na nga yëram bi abdin jaam bii nga xam ni daaqa madhabuhu ah tey yoonam xat na de illaa ilayka lu dul xanaa mu jëm ci yow feneen fu mu jëm fu dul ci yow xat na ci moom tànc na ci moom illaa ilayka sarian ngay aji gaaw nag faarijal himami di aji wuññi njàqareen maa amma baabuka abdun yastaxiisu bikum maa amma du jublu mukk baabuka wala baabaka sa bunt bi abdun benn jaam yastaxiisu bikum di xettaliku ci yéen illaa wa naa la alladi lu dul am na la nga xam ne yabaxi mi ngi ko doon sàkku bilaa waxami ci lu àndul benn def le ci lu amul benn njàqare fii seen bunt bi ku fi taxaw di xettaliku du fi jóge mukk lu dul am na la mu doon sàkku ci xetal xaashaakumu dahra jéggi na leen an yulqa nazilakumu yaxtaaju lil xayri jut yaa malja azaymi wallahi xaashaakumu ëpp na leen addahra jamono wallahi yonent sallallahu sallam an yulqa nazilakumu mu ne jomb na ci yéen ci jamono ngeen am ku wàcc ci yéen di xettaliku dem ba yàgg mu soxla keneen ku ko fajal ku dul yéen maanaam li waa ji doon woy ci Seydina Cheikh ne ko ku la xam dootul xam keneen ku la ñam dootu mos leneen ku la jub dootu dem feneen woy na ko ba mu jeex loolu la ko bëgg a wax rek mu dara an yalqaan nazilakumu yaxtaaju muy aajowoo lil xayri ñel keneen déedéet jut jut tabel may nu sotti ñu dolli ñu yaa malja azaimi yow mi nga xam ne yaay wéeruwaayu aji jàq wala ku siis door a ñëw ci walan yadiqa nag walan yadiqa rasul walan yadiqa du xat mukk rasulallahi yonent bi yàlla bi jaawu ko sa daraja bii ci man xam naa ne sa daraja ndax yaa ne woon bi jaa yi fa inna jaa yi adimun rabbi nañuy nañuy def tawasul ci sa daraja ndax sa daraja lu kawe la fa man xam naa ne yow sa daraja du xat ci man maanaam du bokk ci fiñ may xañee mukk wallaay ndeysaan idal karimu jamono ba nga xamee ne aji tedd ji muy sunu boroom laa dafa takkaayoo dafa sol bismi muntaqimi ci turam woowu ñuy tuddee al muntaqim muntaqim mooy xaal bi nga xam ne wala melokaan bi nga xam ne bu yàlla namee fay ay jaamam li ñu def xaal boobu lay dikkee mun muntaqi mooy koo xam ne day fayantoog ak jaam ñi tey comme ni ko yenn soxna yi di waxee ku ci am sa borub koor boo ne fay ko mu ne ah man duma fayanteeg yàlla mu yore bori weeru koor weeru koor di jubli si fayal sa koor gi nga naan man man du fayanteeg yàlla cest à bëgg duur nit ñi quoi di wane ne da nga bëgg teg yàlla fu kawe naan man kay du ma fayanteeg yàlla dangay ngay caaxaan yàlla mooy fayanteeg yow moom loolu mooy muntaqim muntaxim mi mooy mbub mi mu sol tey day defanteeg jaam ñi mooy tey da ngay fay fayoo ñu dumal bu sayri yi nag ne Muhammadul bu sayri yi nag ne bés bu yàlla solee muntaxim bi man keroog daraja yonent bi dong laa yaakaar ci laay làqu ji nag ah, waaw wallaay ndeysaan xanaa kii ku ko jiiñoon weddi yàlla bu indee yàlla kay xanaa nga war a xam ne nag mu ne yonentu fa inna min juudika man xam naa ne ci sa tabe gi la jógee ad dunya wa darrataha nee na àddina ak àllaaxira ak li ñuy rëy ci sa tabigi la jógee gaa yi ne kii li mu wax rëy na de àddina ak ak li mu rëyee te ne àjjana ci àllaaxira la bokk safara ci àllaaxira la bokk mu ne lii yëpp li muy rëy rëy yëpp ci sa tabigi gi dong la génnee kon yonent nu mu toll wa min ulumika ilmu lawxi ولا علم اللوح والقلم ومن علومك تي سا خم خم بي علم اللوح والقلم لوح المحفوظ بي ني ديغ ني لوح المحفوظ تي ليپ نيك ليپ لو يالا نام اك ديكو بيندي تي جام ادنا با الاخره ليپ نك لوح المحفوظ القران بي نوي جانغ ماغا لوح المحفوظ من لوح المحفوظ نك لي مي ري خم خم لا xalifa gi bind nga xam ne ci la yàlla bindee lépp la muy rëy yëpp ci sa xam gi dong la génnee gaa ñu ne lii daa ëpp soo ko déggul bàyyi ko bu sayri moom xam na li mu wax xam na fa mu waxee xam na la mu wax ñu ne loolu ëpp na loolu boo jàppee ne xam-xamu yàlla fa la yem yow yaa ngi bokkaale yàlla yow stade bii nuy waxee yàlla daf ko dépassé neel rek man daal comprendre ma fii dëgg-dëgg waxi bu Busayri ci waa ñu ne la comme déggoo ko nag demal li annahum humu wa ana ana dégg de mu ne yaa nafsu yow bakkan yaa nafsu yow bakkan yow jëmm ji laa taqnati bul naagu min zallatin adumat ci bakkaar yu rëy yi nga def ay tarxiis yu rëy yoo def bu mu tax nga ne ah man kay sa yàlla dootuma jéggalati waaw li ma def li kay amatuma ci benn yaakaar ci sama bopp mu ne bul def noonu de innal kabaira xamal ne bàkkaar yu rëy yi fil xufraani ci njëgulu yàlla kan lama mi comme yu ndaw yi la rek yàlla moom bàkkaar yu rëy ak bàkkaar yu mag ñoo yem ci moom njëgulu yàlla bàkkaar rëyul ci moom njëgulu yàlla bàkkaar rëyewu ko bon lu bàkkaar rëy rëy njëgulu yàlla ko ëpp moo tax mu ko xamal ne bàkkaar yu ndaw yi ak bàkkaar yu mag yi ñoo yem ci njéggalu yàlla kon kay sàkkul yàlla jéggal la sa bàkkaar yu rëy yi bu mu tax nga naagu ne yàlla dootuma jéggal laalla rahmata rabbi amaan na yërmande sama boroom moom Mouhamadul Basari yi mooy wax xiina yaqsimuha waxtu wuy séddale yërmandeem ci moom yàlla taati dana ma dikkee ala xasabil isyaani tolloog sama mooy yàlla fi xisami ca séddale ko ay waay sàmba kon da nga gañeeti sa diir moom nee na lim yor ciy bàkkaar moo ëpp lim yor ciy bàkkaar kenn yoru ko mais nee na mi ngi am yaakaar bu wér ne bis bu yàlla di séddale yërmandeem ji non seulement da koy sédd yërmande waaye ni bàkkaaram yi toll da koy soppi wat aw yiw jox ko xam nga ñii dañ leen di jégal seeni bàkkaar dañuy effacé mu jàll mu a moom bàkkaar yi duñ ko effacé dañ koy xayma na bàkkaar yi toll ñu ne ko def nga milliard u tonu bàkkaar nee na u ton yi dañ koy soppi yërmande delloo wat ko ne dëgg yàlla loolu day am na solo lay ndeysaan am na nag ñu yàlla di defal loolu am na ñoo xam ne yowmal xiyaam dañuy ñëw yàlla effacer seeni bàkkaar ñu jàll am ñoo xam ne buñ ñëwee bàkkaar yi la jël ñu soppi ko defaat ko aw yiw hmm? yubaddilu llaahu sayyiaatihim xasanaat am ñoo xam ne yàlla nee na bi ñu tuubee ñëw fi ñu tolloon ci bàkkaar dama ko changé def ko aw yiw tey lañ tuub nekk ca maqaam muñ kawe loolu yàlla nañu ko yàlla defal rëccukaay la de yërmande yàlla nag moom kenn da koo tënkul moo tax yàlla moo ciy def lu ko neex daa nga dégg ndeysaan xisa bu neex bàyyi bu saaxo daan nettali ci wane yërmande yàlla nee na dañoo dem yowmal xiyaam nee na yàlla di àtte jaam ñi nee na am ku ñu àtte ba noppi xool ay mbiram dara baaxu ci nee na yàlla ne ko acca safara rek mu daw tërërërërërë di daw mu ne eh taxaw nee na waa ji taxaw ñu ne ko foo jëm xanaa déggoo li yàlla wax mu ne dégg naa ko lan la wax mu ne def na safara ñu ne ko waaw safara la wax mu ne waaw fa laa jëm ñu ne ko mais loolu jarul daw yow fi nga jëm xam nga nu mel safara nga jëm loo ciy daw loo yàkkamti mu tegaat kaay sëriñ bi kaay ñu ne yow fi nga jëm jarul yàkkamti xam nga safara mu ne xam naa ko bu baax a baax ah lu tax nga daw jëm ci mu ne saa yi bàyyil ma daw rek yàlla ne wax xëcc leen ko mu ñëw toog xëcc ko mu ñëw toog nee na keneen koo xam ne bi ko yàlla ne bi biñ ko réglé dara baaxul ñu ne ko safara nee na mu wër ci ginnaaw gaañi làqatu ci suuf taabal yi. nee na sunu boroom ne jëlal ma action bële ak action bii nga indil ma leen ñu laaj nee na ñu ne waaw yow mii nga xam ne yàlla dafa ne safara nga làqutu ci ginnaaw ak yii nga xam ne dañ ne safara nga daw yow safara ñu ne safara looy daw mu ne li ma yóbbu safara laay bañ mu dalaat ma ndax bi may nee ci àddina yàlla dana woon def leen may yéexantalu ba dee ma ragal ne bu nee safara may yéex leneen lu ëpp safara daf may dabaat <laughs> moo tax léegi ndigalam moom bu nee acca rek damay jóg moo tax am na ñoo xam ne nii boo moytuwul di dinañu waroo noonu ci àddina mu ne li ma yóbboo dem safara mooy ba ma nekkee ci àddina bu ma ñëw tey mu ne safara su ma fi nekkee di yéexamtalu damay ragal lu ëpp lii fekk ma fi moo tax ma daw yàlla ne ko jéggal naa la ngir ragal googu nga ragal sama mbugal ba tax ngay daw pour tàbbi ci mbugal jéggal naa la ko waaye yow mi làqatu ci ginnaaw yow yow yow xanaa déggoo ndigal li kii da koo dégg daw yow tax nga dégg ndigal li di nëbbatu mu ne ko xam sa yërmande rek man xam naa ne doo jeexal xam naa ne ñi fi toog dinga nga yërëm ñépp ñëpp dinañ am te dina des waaw ma xanaa xalaat ma xalaat bu desee xanaa dégg ma ci yërëm nag ma ne saa waay nag dëgg dëgg dëgg non ñaar ñii sénégalais lañ li mom moom sénégalais pire mo man babé ni waaw ya, mu ne ko loolu daal dem parce que man biir na dana des wallahi yermande yalla du jeex mu ko ma xamné bo sédé séddee ñëpp ba mu des ma tok fi kay xana di nga ma ci ko la ndax yaakar gi nga yaakar sama yermande lol moy ar raja wal khawf janahi raja wal khawf tir naxwa naxwa maliki kafaaka rada baril anaami xasibu te xaj malik way na ko ca zëjëra ba nee na ñaari laaf yu góoru yàlla yi di naawee ba yegg ci yàlla mooy ragal ak yaakaar tey nga tiit ba ne safara nga jëm bu subaa nga bég ba defe ne àjjana nga jëm hmm. yal nañu ko yàlla fayal waay laala rahmata rabbi xiina yaqsimuha taati ala xasabil isya isyaani fil qisami ca séddale ba danañ ma jox lu tolloog sama mooy yàlla ci aw Ya rabbi yow sama borom wajal yal na nga def sama yaakaar gi ghayra munakisin bu mu njattu ay yalla sama yaakaar gi yalla bu mu tas <laughs> waaw wax na de ya rabbi wajal rajaa ghayra munakisin ladayka fa yow yalla xana ki kuku bugono ku ko bëggoon a condamné la mu waxoon yenent laay wéeru bu li nga man ko bayyi mu dem yalla sama yaakaar gi ma yaakaar ci yow yalla yalla bu mu tas waaw wajal nga def hisabi sama regle gi xayra munkharimi du luñuy xoti waltu fi yalla nga ñewanti yow yalla yalla nga ñewanti yalla nga yeeram bi abdika sa jambi di wax ak yow fi daraini ni ci ñaari kër yep muy adina ak al-akhirah ndax inna lahu aji sax la ñeel sa jambi sabran ak muñ go xamne mata tad'uhu taduuhu waxtu ko al ahwa wu titangi titidi bu bare ci mom rek fitna yi bare ci mom ku nek di dal rek yan hasimu muñ nga dàqu muñ ga day dàqu maanaam mën naa muñ sax dëgg la waaye gis nga bu natt yi tegaloo ba metti rek muñ gi day dàqu dootuma mën a muñati cest à loolu day wane faiblesse am man dama faible yàlla parce que bu musiba yi baree rek fitna yi bare rek sama muñ day dàqu yan hasimu sabran wa adan yàlla na nga jox ndigal li suxbin ñeel niir niir mooy nuage yi di taw nii solaatin ak julli min mu jógee ci yow daa iman bu sax ala nabi ci yonent bi mu ne ko yàlla yàlla nga jox niir wi ndigal li muy sotti cim ndox na doon ak julli gu jóge ci yow jëm ci yonent bi bi mun halin ci dotti gi muy dotti ndox ma mu nekk ay salaatu ala nabi wa mun sajimi ak wal gi muy wal di sotteeku na nekk ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa julli ga nay wéy maaran naxat fii ma ngay coow adabaatil baani banqaasi garabug baan lan moo koy joow riixu saba ngelawul saba ngelawul saba fii mi ngi upp garabu baan banqaasi naan nii di joow fii mi ngi am na nekk ak julli ci yonent bi wa atraba al isa wa atraba fii mi ngi sigiréwu fii mi ngi kontaan al isa gëléem jadil ishi aji wommat gilem ga bi nagami ci ay way manam arab yi da nga dan gis ko yore gilem di ko omat di woyal gilem ci mu ci banexu di ko woyal mu ne ko woy yooyu fii mi ngi neex ci mom rek yàlla na nekk ak julli ci yonent bi ada arab la won xeyna na nit ku ñu la ko xamul dafa bi ma yor mi ngi jeexal de suma rida suma rida top nga an abi bakrin ci Abbakar. وعن عمر يلا نغرم عمر وعن علي يلا نغرم سيدنا علي وعن عثمان يلا نغرم سيدنا عثمان ديل كارمي ني بروم تيدغا ولا كاي بروم تابي والالي نيون يوننت بي يلا نغلين غرم والصحبي صحابي ييب اندون اك يوننت يلا نغلين غرم ثم تابعينا ني توپ سي صحابه يي يلا نغلين غرم فهم نيوم اهل التقى نيوي وي راغال يالا اهل النقى نيوي ñooy ñu set ñi ñoom ahlu xilmi ñooy ñu lawet ñi ñu dënniir lu ña wal karami ak tedd nga ya ay sama borom yaa rabbi yow sama borom bil Mustapha maa ngi ñaan ci daraja yunti yàlla Muhammad balligh yal na nga jotal maqaasidana sunu mébét yi sunu bëgg-bëgg yii yal na nga koy yeggale ci moom waxfir lana yàlla yal na nga ñu jégal maamada la weesu ci ñun ci ay ñaawteef yal nag ñu ko jéggal yaa waasi al karami yow aji yaatu ji njéggal waxfir yal na nga jéggal ilaahi yow sama borom li kullil muslimina ñeel bépp jullit bi ma ci ci ci sababu ci sababu lii nga xam ne yetluuna ñi ngi koy jàng fil masjidil aqsa ca masjidul aqsa ca Jérusalem wa fil xarami ak fii ci xaram bi ci makkatal mukaram allahu akbar burdu bii nuy jàng di ko jàng ci Jérusalem di ko jàng fii ci Makka sunu borom ci sababu lii maa ngi lay ñaan yàlla ngi ci jéggal jullit yépp ci àddina dul ba sëriñ ñëpp ko ameel njukkal te encore lii tegtal la buy wane ne kiy wax gàmm bi daal fan la ko jële loolu sosu bu yàggul la Makka bi wahabi yu nii ñëwee ci lañu ñu daj lu bare lu fa newoon waaye lu bare lu nuy ayal nii dara amu ci dafa masa a toog ci jàkka di tagg yonent bi jàng burdu ci biir jàkka yi ko daan def musta dañ euh, Hassan fan la daan woyee yonent bi ci biir jàkka ji yonent daan na toog saxaaba yëpp toog ci biir jàkka ji Hassan toog ci jàkka ji di ko tagg ñëpp di déglu muy jóor ay woy yoo xam ne kenn mun laa xam ne nu mu toll mu ngi mel ni tey nga jël Abdou Aziz Mbaye rek wala duudu kenn mbaay teg ko ci jumaa ji muy tagg yonent bi mbaa muy tagg xalifa loolu yonent def na ko ba tàyyi saaba yi nee nañ sax mas na ñëw yonent yéegal ko ca kaw min barba gis nga lii de toog ci yéegal xasan ca kaw min barba muy tagg yonent yàlla muhammad di xas yéefar yi mu naan ko ruuxul quddusi maak yonent di yéem xasaan naan ko jibril la ngi ànd ak yow ndax moom moom moom moom inspiration bi ne woon ci moom mara day taal dafa mën a woy te woyam dafa xor xam nga xor dafa am ñoo xam ne dañoo am làmmiñ bu xor maanaam ñëpp mën nañoo wax waaye bu ñu waxee rek ñu fàtte ñëpp <laughs> loolu day am xasaan nag loolu la ko yàlla mayoon mooy yëfër yi dañuy xas yonent bi ba doyal mais benn woyam lay woy rek dëkk bi yëpp capté woyu fàtte woyu yëfër yi moo tax bu daan woy yonent da koy encouragé naan ko taggal yow jibril moo lay dëgëral mi ngi ànd ak yow waaw sallallahu alayhi wa Mouhamadul Busiri ñaanal na ñuy jàng burdu ci jàkk yëg fépp mu ne maa ngi koy ñaan bi jaahi man ca darajay ka nga xam ne baytuhu néegam ba fii taybatin ma nga ca tayba tey mi ngi ci teey mooy ca madina xaramun wallahi wa ismuhu turam qasamun cër la min azamil qasami yontu yàlla mu sallallahu alayhi wa sallam turam ñi ngi ko xaree ci mahmud mahmud turu yàlla la فشق له من اسمه ليجب له فذو العرش محمود وهذا محمد او كما قال لا انسان صلى الله عليه وسلم ملني نبي اه نون دي تيري بي نيور في لا وهذه برده المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم ابياتها قد اتت ستين معمعة فرج بها كربنا يا واسع الكرم من وهذه لي burdatul muxtaari mooy burdu bi yonent yàlla muhammad bi wala nga ne mooy burdu bi ñu tànn xadd xutimat ñu ngi ko tëj nag ñu ngi koy mottali bis ni tey ci tëju burdu bi walhamdulillah ñu ngi sant yàlla fii bat in ca tàmbali ga wa fii xatami ak ci tëj gi alhamdulillahi rabbil alamin non bu saydu kooku du kese kese bu saydu beneen affaire la walhamdulillahi fii bat in wa fii xatami abyaatuha mu ne abyaatuha bayutam yi xat atat dikk na sittiina mami atin nekk téeméer ak juróom benn fukk juróom benn fukk ànd ak téeméer mooy cent soixante baytu la farrij biha maa ngi ñaan yàlla na nga wuññi ci barke burdu bi karbanaa suñuy jafe-jafe suñuy metti metti suñuy tar-tar yaa waasi al karami yow aji yaatu ji njëkkal su ko defee mbokk yi mel ni na loolu lañu amoon ci waxtu euh, di ñaan yàlla mu may nu nu fekkee at yu bare na waaye gàmmu gii yàlla na fi yàlla doxe faj aaju yépp ci barki yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam na fi yàlla doxe saafaraal ñu jàngoro yépp yàlla na fi yàlla doxe def ñu ñu nekk ay dëgg-dëggi soppe sayduna muhammad sallallahu alayhi wa yàlla bu ñu amati aaju bu të ajo bu ñu am rek yàlla na faju ci saasi yàlla bu am feebar bu ñu jaaxal feebar bu ñu am rek yàlla na ko yàlla saafara yàlla yàlla guddal fan yi lool te yaatal wërsëg yi lool may ñu soxna yu baax njaboot gu barkeel ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam lépp luy jëriñ doomaadama ci dundam ak ci diineem yàlla nañu ko yàlla defal yàlla nañu yàlla boole ci góor yàlla yi yàlla bum ñu bàyyee suñu bakkan fa mu namm jaamam yegg fa ci mbaax ñi ngi ñaan yàlla yal nañu fa yàlla cëppeel bi fadlihi wa wa karamihi yal nañu ko yàlla defal su ko defee ñi ngi jégalu jaajëfalaat euh, Haaj Mansour Mbay ñaan chaîne bii yal na ko yàlla yëkkati yal na yegg fépp ci àddina yàlla na yegg fépp ci addina yal na yegg fépp ci àddina Al Misbah TV waaye jaajëfal Cherif Cheikh Ahmed yi nga xam ne moom mooy sonn ci xarala gi nag mooy dem mooy dikk mooy def lépp yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla yëkkati yal na yàlla faj ay aajo yal na yàlla defal ko promotion ci liggéey bi bu rëy a rëy rëy yal na yàlla mottali ay mébétam ay ambition am yal na lépp mat ci barke yonent bi euh, kon nag ñu ngi leen di jox dig daje rek ba déwén ak jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.